yu nga xam ne si nii yu jàmbaare lañ toll ci ñaar fukki nit ak man mii muy ñaar fukki nit ak benn ñu tasaare leen ci réew yi um, xam naa damay njëkk a waxee foofu sous commission bi nga xam ne si nii moom laa nekk moom laa wax ni muy ñaar fukki nit ak benn lañ jël séddale leen ci réew xam naa suñ ma mayoon ma mën a lim ñooñu fa nekk doon na am solo ndax wax dëgg yàlla ay gaynde la waaw comme baax na comme temps bi gàtt na tamit li may wax rek mooy juróom benn fukki réew ak ñaar ñoo nekk ci diaspora bi indi woon nan fanweeri réew mu des fanweeri réew ak ñaar muy euh, seen compte rendu waaye am nan jafe-jafe bu mag ci yenn réew yi kon coordonnateur yi nekk fii ak yi nga xam si ñu ngi dégg nañu yombalal liggéey bi yombal bi nag mooy nañu ubbil ñi nga xam ne si ñoom ñooy membre sous commission seeni réew ñu mën faa dugg di xam lan moo fa xew di indi compte bi donte réew ma am na sooxe ñu indi wane ne liy sooxe nañ jubbanti ko loolu lu yaatal liggéey bi lay doon donte réew ma ma ngay doxee na xam ne si noonu la ko bëggee mu wax ko ab soññee ci yeneen réew yi nga xam si ni am nay sooxe kon nañu ubbi bu baax a baax réew yi waaye am nañ ci ay jafe-jafe yu bëree bëree bëri ndax li tax ñu indi compte yu bii passé fanweeri réew bàyyi yeneen réew yi li ko waral mooy doon am réew yu xam dañ ca am jafe-jafe kon loolu bokk na ci li nga xam si ni maa ngi koy ñaxtu te di ñaan bu baax a baax a baax ñu yombalal ñu liggéey bi ndax yaakaar naa ne liggéey bi bu yaatoo ni ko massification bi yaatale buñ bàyyee sous commission de suivi dugg fa xam la fay xew di indi compte rendu yi ñuy jubbanti ak di soññewaat bu boobaa dana gën a baax ndax am na ci ay réew yoo xam si ni ku ne xam na ne ña ngay verser waaye seen versement des na suñ ñu bàyyi woon niñ ko bëggee sous commission de suivi indee ko noonu boobaa kilifa yi muy sëriñ Abo Bousso ak sëriñ Moul Seck sëriñ Moustapha danañ xool ñoom nan lañ koy jubantee baa mu gën a baax bu bokk na ci li nga xam si ni euh, ay jafe-jafe la euh, di santaat yàlla nag bu baax a baax ndax li tax ñuy sant suñu borom mooy rapport bi ñu indi indi woon nañ ko daaw ren indi nañ ko ci 6 euh, mois yi nga xam si nii moom la ñu liggéey te incha allahu rabbi bu ñu demaat 6 mois dinañ indiwaat beneen rapport muy bi waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy ñi ngi sant ñi nga xam si nii indi nañ seen rapport ba pare xamle seen sooxeem réew ñoom ñu nangul ñu ko xamle ne lii sous commission bi indi kat neexul ba neexul waaye moo fa am kon loolu tamit ñooñu di leen jaajëfal loolu bokk na ci liy doxal liggéey bi sous commission bi ñëwul pour saboter ñëwul pour di gëstu waaye dafa ñëw pour. liggéey bi nga xam si ni moom lañ ko dénk mu wax fa nam koo gisee waaye mu waxee ko ci ak maamu moo tax su commission bi jub te bi mu ciy dox ba léegi yàllaa ngi ciy dimbali ci sutura waaye yeneen réew yi nga fa jafe nañ ñu ubbil bu baax a ñu mën faa dugg euh, euh, ba mën faa indi ay contrainte kon ñi may waxal te ñu dégg ma nekk ci coordination bi nañu ubbil seen réew fépp fu mu gisul membre sous commission de suivi ñoom sax waroon nañoo mën a wax ne ah réew talkat gis ñu fa membre bi lu tax bu boobaa bokk na ci jàppale kon tamit ñi nga xam si ñoom ñoo jiitewaat sous commission yi ku ci mel ni Serigne Khadim Thiam ku ci mel ni Serigne Souhaïbou Seck ku ci mel ni Baye Serigne Gueye ku ci mel ni Serigne Amady Wat ñoom ñi jiite sous continent yi nañ ñu dimbale ngir yàlla réew mun jotewut ñu jot li ñu ko ba dugal fa sous commission de suivi ban xam lan moo xew di joxe ay compte rendu liggéey bi di dox ci ni ko bëggee. ban bi nag damaa jiiteem réew muy coordonnateur coordonnateur bu Guinée Bissau ah ok kon nag lii daal xam naa bokk na ci li nga xam si ni bëggoon naa ko jàlle ndaxte comme ci ndigal la ñuy dox bis bu ñu demee ba am ci ndigalu mën a dugg ci réew yi ñu de boobaa bi am na lu nga xam si moom lañ soxla ay ñaxtu yoo xam si ni war nañ cee euh, war na ko gaaral nit ñi euh, surtout nag président Touba ci kanam muy Serigne Abdou Fatah Gueye ñu def ci jàngat xool ni nga xam si ni moom lañ ci jàppale kon jërëjëf jërë ngeen jëf fi ñëw gis nga Touba yi taxaw ba tax na yaakaar naa képp koo xamante ni réew ma nga jógee boo delloo wala nga communiqué wala nga bëgg xam ne ay bagages ay loo xamante ni moom du jar ngay ko daan defee ndax kon kayit bi mu gis wala mu dégg bu baax nag ci li nga xam ne ko ci naa di ci communication xam naa dañuy wax rek ci suufu suñu jëwri nga xam ne moo fi teew nii muy Serigne Fallou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite communication bi nga xam ne bu ñu nee Touba Ca Kanam euh, communication wala Touba Ca Kanam organisation bu la boo xamante ni euh, muy diaspora ak Sénégal lépp leen la waaye comme ni ko sëñ Mourtala Diop waxee sànq dañuy ne 62 pays euh, réew mu nekk am ay réalités am moo tax commission bu nekk. fii ci Sénégal rek gox bu nekk ñu wut ko fa teew ñun nag ñu yore communication bi nga xam ne moo sos Touba kanam muy liggéey bu am solo boo xamante ni ñi ci daje ñëpp euh, gis moo leen ci dugal wala dégg ci réseaux sociaux yi wala rajo wala télévision muy lu am solo muy loo xamante ni yaakaar naa ne Touba kanam bu ñuy wax budget li ci foofu la war a jëm parce que liggéey bi looloo liggéey bi tey foofu la ñuy xaar ñu bu ñu nee 62 pays ñu ngi ciy tudd. pour ñu coordonner ko dafa am lu mu laaj laaj na ay moyens moyens yi nag li ci jiitu ñun bi ñu ñëwee dañoo gis ne Touba ca kanam mbooloom Serigne Touba bi ñoo ko ci lañ woo médias yi nga xam ne ñu ngi ci àdduna bi yëpp muy dëkk boo fi dem ñu xool média ba nga xam ne day liggéey ci Serigne Touba ñu fexe ba collaborer ak yow joxe sa bopp ci liggéey bi muy ouverture bopp loolu yàlla dimbali nañ ci muy États-Unis muy Europe muy Afrique foo fi dem Euh, di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk muy Sëñ Xaadim euh, Badiane boo demee Asie Sëñ Amady Wade boo demee États-Unis Sëñ Xaadim Ndiaye nga xam ne médias yi fa nekk yëpp keroog rek joxe na sa bopp li ci des rek mooy que ñu yombal ñu liggéey bi te comme yàlla dogal na euh, am na commission yu taxawal pour def loolu ñu ngi xaar kilifa yi ñu mettre ko en œuvre pour mën a dox ci loolu jëm ci loolu leneen li ci des muy ku wax Touba ci kanam liggéeyu virtuel danga nga wax site internet site internet yi am na yu jotoon a créer point Touba ca kanam point com point point sn yooyu yëpp yàlla dogal nañ ko jënd nañ ko ba mu nekk ci moomeelu Touba ca kanam mais kenn fonctionné wul li tax fonctionné nag dafa am lu mu laaj ñu ngi ci waxtaan ak président Fallou Ndiaye rek li mu laaj dafa soxla équipe boo xamante ni moo xam journaliste moo xam ay développeur moo xam ay montage parce que ñun ci diaspora bi tout le temps bi may ñëw fii rek waa Argentine ñu may sollicité programme bu fa am mais bu ñu la woowee mënoo am fooy adressé wu pour defal leen li ñu bëgg te Touba ca kanam dafa am ay sologramme muy affiche yi sax couleur yi ku koy defar da ko war a respecté kon mënoo jóg n'importe quel di ko defarloo vidéo bu ngeen gisee yenn vidéo yi léeg-léeg muy circulé mooy que dañuy am dafa sës mais bu tey jii bu ñu amoon équipe boo yoo xamante ni vraiment ay yu suurewu la am matériel yi ñu bëgg di collaborer ak Sénégal ak ñëpp ñu ko bëggee vraiment loolu dinañu jàpp si ñun waaye yàlla dogal na nag euh, yàlla dogal na ñun suñu ñëw fii li ñuy def mooy ndax liggéey bi yombul ndax liggéey virtuel ñi ngay waxal gisoo leen xamuñu leen temporament yi bokkul léeg-léeg sax dañuy am ay juwaloo waaye yàlla dogal na li ñu yore bi ñu ñëwee adressé nañ ci ñi ko yore muy communication bi muy sëñ Fallou Ndiaye ba lépp loo xamante ni soxlaat na ko ci diaspora bi muy siyee muy flyers lu mu ci mën di doon dinañ collaborer gilet yi ngeen gis nii ci diaspora bi la jógee muy 40 gilet yoo xamante nii communication la euh, organisation la ak réalisation ñu ko def ay Italie teg ko ci disposition Touba Ca Kanam ci chaise bi saa bu amee programme bu mel nii ñu génn ko kon réew mu nekk war na ko mën a am te def ko nag ci defin woo xamante ni day respecter norme yi Touba Ca Kanam loolu daal ñun mooy suñu jàmbat di ñaan yàlla rek comme ni ñu ko bëggee noonu kilifa yi jàppandeel ñu ko lool ba collaboration bi xam ne autorités yi